tabaarakallaahu wa kullu amin wa antum bi xayr noo ngi ci saar wu tudd addaariyaat noo ngi ci aaya ju tudd cinquante fa firru ilallah waaye ni ñu koy baaxu ji def mooy jàngal aayaat door ñëw ci jéem a ak jéem a tekki auzu billahi min alsheytaani wassamaa banaynaaha bi aydin wa inna la muusicuun wal arda farashnaaha fa nicmal maahiduun wa min kulli shay'in xalaqnaa zawjayni la'allakum tadakkaruun fa firru ila allahi inni lakum minhu nadirun mubin wala tajcaluu maca allahi ilahan aaxara inni lakum minhu nadirun mubin sadaqallahu alazim wa ballax rasuluhu alkarim wa naxnu ala ma qaal rabbuna wa mawlaana min ash-shaahidin allahumma ij'al al-qur'ana lana fi dunya qarina wa fi l-qabri mu'nisa wa fi l-qiyamati shafi'a wa ala sirati nuura wa ila al-jannati rafiqa wa baynana wa bayna naari sitran wa hijaaba wa ila al-khayrati kulliha dalilan wa imaama bi fadlika wa juudika wa karamika yaa akramal akramin mbokk yi yàlla jàmm yàlla na kiin ak seen njaboot koor gi ñëw na fekk nu fi buy dem yàlla na nu fi bàyyi ñi fi fekkoon daaw te fekku leen fi ren ña ca tukki yàlla na ñibbisi ci jàmm ña ca feebar yàlla na borom bi saafara leen ña ca faatu yàlla na leen yërëm yàlla na bàmmeel di seen noflaay kenn ku nekk bu duggee ci koor gi sa xel dana dem ci koo woora ndooloon daaw ngeen bokk nekk ci koor gi ren mu nekk biir suuf ñu ngi massawu ñépp di ñaanal ña dem tabarakallahu koor gi bu ñëwee su FM seen rajo ci njiital le directeur Baye Oumar ak ñu koy jàppale ñépp dañu daal di fab émission yi yokk leen tafsir bi di am bés bu jot waaw tafsir bi di am bés bu jot nga xam ne kon mën nga ne danga am ñaar fukki tafsir ak juróom-ñeent lu mu tuuti tuuti <clears throat> waaw ñaar fukki tafsir ak juróom-ñeent te loolu rajo yi koy def ak télé yi la ca ëpp nit ñi duñ leen ca jàppale sponsorisé émission yi danay wax émission bi neex na ak am na solo rek wala waa leen góor waaw waaye am na yooyu bu ko doon def niñ koy jàppale ñay def yenn ya mu gën a jàppandi ala kulli xaal ñoo ngi ko ci jaajëfal baax a baax le directeur Baye Omar ak mboolem ñoo xam ne ñu ngi ciy jàpp ci Sud FM ci biir réew mi ak ci bitim réew région yi ak arrondissement ak département yi rawatina correspondant yi nga xam ne ñoo nekk ci région yi te di fay taataani xibaar di leen ko jottali te lépp di nekk lu lu lu wér Baye Modou Jaxate noo ngi tey ci suñu suratu daariyaat aaya cinquante fa firru ilallah noo ngi ci wàccuwaayu juróom benn fukk ak ñeent juróom benn fukk ak ñeent la nekkoon bi weesu mooy istinaafu tawba tey war a nekk suñ juróom benn fukk ak juróom incha allah mooy istinaafu tawxiid ñaari bunt yooyu rek la al imaam baamtuwaat ndax day wàccuwaay yoo xam ne du jeex at tawba du jeex ak tawxiid du jeex waaw mu indi taw ba tàmbaliwoon ca bunt ba indi woon ko tegoon ci almuhaasaba daal di indi nag tawxiid tawxiid baat bi mooy nga def dara mu nekk lenn moog waaxid gi ñuy firee benn ci arab wala ahad gi ñuy firee kenn ci arab ñoom ñoo yem waaw ahad bu tax sunu waajur wa xaaji wala sunu waajur wa sëriñ abdul ahad moo tax ñu tuddee kon abdul ahad al ahad abdul ahad al ahad mooy borom bi tabaaraka wa taala kon tawxiid mooy nga nga nga bennal dara nga ne dara lii benn rek la amul ñaar waaw loolu wàccuwaay la bu am solo mooy avant dernière bi waaw mooy avant dernière bi gaa yi àgg ca tableau ba yàlla nañu àgg ngeen àgg ñoo bay mu du tawxiid mooy li yonent yi daan woote tawxiid mooy li yonent daan woote kañ njëkk a yónni ba ci kiñ mujj a yónni la doon seen mission mooy ginnaaw jubbanti jàdd jàdd yeeg yàqu-yàqu yi na ci seen pénc lañ ca doon teg lañ ca doon jiital mooy tawxiid tawxiid kon mooy awalu daawati rusul min la du nuux ila muhammadin sallallahu alayhi wa tawxiid mooy njël beenu wàccuwaay ci yoonu gaa jëm ca sunu borom tabaaraka wa tawxiid mooy maqaama bi jiitu ci maqaama yi nga xam ne assaalikuuna ilallaahi ña sóobu jëm ca yàlla fa la ñuy déparé loolu nag alxuraan firndeel na ko dafa wax ne ci surat numéro 7 aya 55 laqad arsalnaa nuuxan ila qawmi fa qaala yaa qawmi abudullah maa lakum min ilahin xayru loolu la wax borom bi nee na ba mu yebalee nuux ilaa qawmihi cay mbokkam ilaa qawmihi caw askanam waaw ba mu la ko yónnee ilaa qawmihi baatu ilaa gi mooy yónni nañ ko ma ngay dem fu mu jëm ila xawmihi waaw moo tax bi alayhi salaatu salaam feeñee déggoo fa ila xawmihi laqad jaakum ñépp dugg ci biir fa qaala nooxun ba mu àggee ca xawmuhu ca mbokkam ya mooy leen yaa xaw mi ubudullaha wéetal leen yàlla ubudullaha wéetal leen yàlla ma lakum min ilahin xayru amu leen jeneen yàlla ju moom kon kenn la fi kon tawxiid a ngoog ma lakum min ilahin xayruhu kenn du seen yàlla ku dul moom du ñaar du ñett du ñeent ma min ilahin xayru tawxiid boobu ca la nooxun woote junni at yu manki juróom fukk boo ca boole at yam dund doon a nekk bu yonent boole ci at yam dund ginnaaw ginnaaw liggéey bu rëy ba loo ci doon li am junni waaye daal lam doon woote mooy ubudullah lam doon leeral mooy maa lakum min ilaahin ghayru tawhiid ngoog te ku nekk foofu yaa am carte de membre ku xam loolu yaay membre actif ku réere loolu réer nga réer say bokk ku réere loolu réer nga réer say bokk mën ngaa ñëw àdduna ba ñibbiti àdduna du yëg na ñëw nga fi waaw moom la mag ma waxoon ne xuqal bukaawu ala saadatin amwaati tabkil araadi alayhim kasamawaati am na ñu fi ñëw ñoo xam ne bis bu ñu fi gontee asamaan jooy bis bu ñu fi xëyee asamaan jooy waaye am na ñoo xam ne mën nañ fa ñëw ba xëy fi ba gontu asamaan ak suuf duñu yëg ne sax nekk nañ fi la sëriñ Cheikh doon wax ne yàlla na ko yàlla yokk leer dana ñëw àdduna ba ñibbi te inscrire loo yi nekk demoo fa sax nag mu ne yàlla boobu nu daal de waaw benn yonente ngoog doon woote tawxid tawxid awalu daawati rusul boo demee ca Hud surat numéro 7 aya 65 wabudullaha ma lakum min ilahin xayru la daanal la waxam ja moom it wabudullaha wéetal leen yàlla ma lakum min ilahin xayru amu leen jeneen yàlla judul moom ba dama ci yonte yàlla saalix tam ba tey ci a saar wi surat numéro 7 aya 52 moom it ba muy daaneel daf ne ubudullaha ma lakum min ilahin xayru wéetal leen yàlla amu leen jën yàlla ju moom loolu la Shuayb bu waxoon surat numéro 7 aya 58 waaw sunu mbokk mala ca Kaolack al mahdi moo nu koy joxoñe la noonu ci bu duggee ci wax sa xalaat waaw ca Kaolack bu duggee mooy moo ni wax surat numéro 7 aya 58 lii la ci yàlla wax daal di ko liiral ñu ko ci français waaw moom dégg na tubaab moo tax sunu borom ca suurat numéro 16 ay 26 mu wax ñu ne ba laqad naa fi kulli ummatin rasula wa laqad baasna fi kulli ummatin rasula xeet wu fi nekk yónnee naa la bi yónent hmm? xeet wu fi nekk yónnee naa la bi yónent waaw wa laqad baasna yónni nañu fii kulli ummatin ci xeet wu ne rasulan ab yonent yonent yépp nag lañuy bari bari téeméeri junni ñaar fukki junni ñeenti junni genn kàddu dong lañ lañ yoroon mooy ani abudullah genn kàddu googu la yonent yépp bokkoon ani abudullah dégg ngeen sànq nooxun loolu la wax huud loolu la wax saalix loolu la wax Shuaybu bu la wax ani abdullah bu taaxut te ngeen moytu jaamu lu dul yàlla te ngeen moytu taaxut ngeen jaamu lu dul mbokk yi maa ngi suuratu ay cinquante fa firru ilallah maa ngi ci wàccuwaayu juróom benn fukk ak juróom mu di istinaafu tawxiid tawxiid mooy caabi liggéey yonent ya at tawxiidu miftaahu daawati rusul mooy caabi woote yonent mooy ubbi ga mooy ubbi ga waaw kera ba sallallahu wa sallam di yónni Maas ibnu Jabal waaw kera ba yàlla di yónni Eh, ba yónent ba di yónni maas ibnu jabal di ko yónni yaman di ko yónni yaman ca yaman moo tax dem ba jëmmi jamono yam yaman yet ya jóg ku ne xaañ sa morom waaw waa Makka waa yaman yet ya jóg ku ne xaañ sa morom ah axiru zaman waaye karabam koy yónni ndeysaan ñu waajal ko waajal ko mu mën a dem dellusi si utal ko yóbbalu ndox ak muuraake waaw dal ko yóbbalu ndox ak muuraake ki yàlla yónni woon nag di ko yónni daal di ko yóbbal yóbbal boo xam ne bi xeet wi yépp a ko soxla xeet wi ñépp a ko soxla ndax moom ay waxam amul saarit ay waxam amul mbalit ay waxam amul xusaabala kàddu gu génn njariñ la mu waajal maas ibnu jabal ne ko nag innaka taati qawman ahla kitaab maas mu naa mu ne ko fi nga jëm ahlu kitaab lañ ay intellectuel lañu ñee yahood lañ ñee nasaraan lañ ci ñuuñu nga jëm te ko jëm ci ay intellectuel boo waajulul sa bopp damm la yomb leen mm-hmm. moo koy jàngal ay intellectuel ñooyam ndax yéen a tolloo yéen a tolloo niveau bi yéen a ko tolloole waaw lu am solo la mu ne ko ci ay intellectuel nga jëm waaw innaka taati qawman ahla kitaab ci ëllu kitaab nga jëm ay intellectuel lañ xam nañu dara la nga leen di doye ji <coughs> du werante ci euh, ay texte déedéet du werante ci ay continuité texte du werante ci ay langage hmm? mu ne déedéet bu leen jéem woo fa nga tollook ñoom bu leen jéem a woo fañ la raw na nga leen jéem a woo fi nga leen raw na leen jéem a woo yow fi nga leen raw loolu mooy dindi complexe bi ci moom ahlu kitaab lañ waaye bul bul jaar ak ñoom foofu wax nañ ko keroog daarul muxti ca sunu eh, màggalug daarul muxti ga diggante sëriñ bi ak tubaab bi waaw diggante ndaw lam yónni woon maam cernu ak tubaab bi ma ne phrase bi yonent bi njëkkee mboolem kuy jàngale diine mbaa ngay dem ci barab yooyu lii war na war na nekk sab yóbbal waaw Muhyiddin sëñ Sàmba Jàllo ma la nekkoon ca Kawlax ala xaydi yi daana dugg ci xam-xam yooyu daana ci bind daana ci wax ala li xaal alayhi salaatu salaam ne ko innaka taati qawman ahla kitaab xamal fi nga jëm maas labbayka mu ne ko xamal fi nga jëm boo xamul fi nga jëm ma wax la fi nga jëm ahlu kitaab ca ñoom nga jëm soo demee fal takun awwala ma tad'uhum ilay ibaadatullaahi waxda soo demee li nga war a njëkk a def tam yitteel la mooy nu jaamu yàlla moom dong ñu jaamu yàlla ñu wéetal yàlla moom dong loolu nag bunt ba mooy fa ida shahidu an laa ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah fa axbirhum anna allah farada alayhim xamsa salawatin fil yowmi wal layla mu ne ko soo demee waxtaan ak ñoom bañ nangu ne yàllaay yàlla moo yónni muhammad kon foofa mokk na mu ne ko sa deuxième programme mooy nga ne leen yàlla farataal na ci ñoom juróomi julli ci vingt quatre heures bu ne noonu la dem moom ba yóbbal ba àgg ba nam àgg ci wattaqi daawatal mazlum bul fa tooñ kenn waaw bul tooñ kenn waaw discours bu gudd la waaye li tax al imaam indi ko rahimahullah mooy fal yakun awal ma tad'uhum ilayhi ibadatullahi waxda kon yonent yi seen mission mi ngi doon tàmbalee ci wéetal yàlla ndaw lii sallallahu alayhi wa sallam ca yaman muy maas ibnu jabal radiallahu anhu mu ne ko tàmbaleel fa yónnentee daan tàmbaleel tàmbaleel fa yónnentee daan tàmbaleel alayhi salaatu wasalaam wax na ci hadiis umirtu an uqaatila naasa xatta yashadu an laa ilaaha illa wa anna muhammadan rasulullah mu ne jox nañ ko ndigalu gàddu jaasi waaye ku ne ashhadu an laa ilaaha illallaah jaas ja du la dal te mooy baatu tawxiid boobu mooy baatu wéetal yàlla subhaanahu wa tawxiid mbokk yi awwalu maa yudxilu bihi fi l islaam fa innahu aaxiru maa bihi min ad tawxiid benn baat la boo xam ne mooy dugal nit ci lislaam waaw waaye ku góorgóorlu ba mu génne la àdduna sa affaire baax dugge ko ci lislaam génne ko àdduna dugge ko ci lislaam waaw mooy da nga naan laa ilaha illallah ñu ne bokk nga ñu ne bokk nga bi ngay génn àdduna say bokk wër la nga tëdd ci lalu sakaratul mawti sa kàddu ne laa ilaha illa ñu ne dugg nga bële dugal na la ci lislaam bii dugal na la ca aljanna moo tax tàmm laa ilaha illallah baax lool nan ko tàmm nan ko tamal sunu làmmiñ tamal ko sunu njaboot tàmmal ko sunu yëpp waaw na bàyyi na na maami eh, al oustaz Lamine Donde jëm meloon waaw <laughs> bañ bañ tudd ko bismillah tuddee dëkk ba bismillah mu néew waaw góor ga daal bismillah rek am na góor gu nekkoon fële ci yées yi moom tam yaasin la tuddoon waaw yaasin wal quraanil hakim kenn mësu koo gis rek ba far ñu tuddee ko góor gi yaasin seet te góor gi yaasin ndeysaan eh, kon awwalu maa yadxulu fiihi bihi fi lislaam fa innahu aaxiru maa yaxruju bihi min ad dunya mooy dugal fii ci lislaam bu dee fële moo lay dugal aljanna ndax alayhi salaam moo wax ne man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illa allah daxal aljanna ndeysaan buñ ko añaane kenn nag jullit yépp a ko moom jullit yépp a ko moom waaw ay ndeysaan jullit yépp a ko moom moo tax bu nit nekkee ci sakaratul mawt ndeysaan ay bokkam ne selaw di tudd baat bi Haji ma Sakho waaye bu leen ko wax waxal laa ilaha illallah nee bu ko wax loolu ñu ne ko nu def mooy da ngeen baat bi rek naan laa ilaha illallah na bu ci xelam demee rek mu tudd ko ndeysaan waaw ba tax mbirum sunu borom kenn xamu ko xanaa moom rek jalla jalaalu azza maa ngi ci suratu daariyaat ay cinquante fa firru ilallah maa ngi ci wàccuwaayu juróom benn fukk ak juróom mu ngoog baatu laa ilaaha illallaah mooy dugal nit ki ci lislaam waaye moo koy génne ci bokkaale moo koy génne ci bokkaale bokkaale mooy dugal nit ci gëm yeneen ne yooya it ay yàlla lañu tawxiid mooy déedéet yàlla dongay yàlla hmm? mu lay dugal ci huwa allahu alxaaliq mu lay dugal ci lahu al asmaul xusna waaw ngoog moo tax al junaydi bokk ci al qawmu al junaydi ba mu ñëw ci al mu ne nawaani ñaari xeet la benn bi mooy ifraadun fil itiqaadi wal xabar boobu it nawaani ithbaatu mubayanati rabb taala lil maxluqaat ila axiri qawlihi ba tegtaloo ca laysa ka misli shay huwa samiu albasir laysa laysa ka ka mithlihi waaw loolu bu la ko Cheikh Jaan ngay jàppalaan ndeysaan rahimahullah mbokkum Jibril gay ma ak xaali gay ci bu la ba jàppalee laysa ka mithlihi mu ne bu yàlla ne woon laysa mithlahu wala laysa mithluhu shay mu ne bokkut ak mu ne laysa ba noppi def fi ak ka diggante mithloog laysa ne boo ko wax ci olof danga naan bu amoon lu niiru yàlla lu niiru loola amut aw lu niiru lu niiru loola amut allahu akbar <laughs> kenn mësu ko gis rek boo ko làqar ci rek ne wax na dëgg de laysa ka mithlihi shay bu amoon lu niiru yàlla lu niiru loola amut ndeysaan xaasa lillah laysa ka misli shay wa huwa samiu albasir mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot istinaafu tawxiid kon mooy wa huwa allahu almaabud moom rekk képp kott dong lañ war a jaamu waaw moom rekk képp kott lañ war a jaamu te bañ koo jaamoo jaamu guy nuru commerce defal naa yàlla nangam kon dana ma defal nangam yow defaloo yàlla nangam kon du la ko defal bokk na ci la li la jël pénc mi jàpp ne defal naa yàlla nangam kon man aljanna laa jëm daal ni diw yow defaloo yàlla nangam kon sawara nga jëm déedéet ab jaam li ko war mooy jaamu waaw yàlla sañ-sañam lay doxal Sëriñ Cheikh nee na yombal xiyaam da nga ñu seen ñu jiital am mag waaw lii kii lum def ñu ne ci sañ-sañu yàlla lañ ko jiitale waaw sañ-sañu yàlla waaw ba demee ci armée ba caporal yaag njiit yaag ñoom seen yooyu léeg-léeg ñu doxal sañ-sañ yoo xam ne ca kaw ña ñuy forme sañ-sañ da ko waral laaj ko sa dix ña <laughs> sañ-sañ yooyu nit ñi am ci nit ñi nag yu ko raw la yàlla am ci jaam yi kon moom wa huwa allahu al maabud moom rek lañuy ñu jaamu danaa koy misaal imaam Ablaye Ndaw mëla ca ndànd ma ne ko dangay jënd am nen ñu baxalal la ko sañ-sañ bi jeeg bi am ba fab nen bi def cim ndox di ko baxal lan la ko neen bi def moom sañ-sañ rek la waaye mu baxal ko ba nen ba ñor mu bàyyi ko ba mu ba mu ba mu ba mu sedd imaam lay Ndaw ne koo tàcc daal di koy toj te du ci dem police kat duñ ko woo duñ ko woo kolabaan duñ ko woo feneen sañ-sañ yi mu am ci nen bi allahu akbar te li leen boole mooy jënd ko dong waaw jënd ko dong <laughs> kon nag yàlla dafa am sañ-sañ ñu jàmm ko moo tax mu sant nu koor gi ñu ne ay ca mu ne julli ñu ne ay ca aji màkk ñu ne ay ca azaka ñu ne ay ca sanction yim ñuy teg ci koor gi nga xam ne ku ci leb fay ko léeg-léeg nga fay ko yokk ca dara waaw waaw ko tey ko tey dog ci diggu weeru koor wi mu ne la da nga kafaara deux mois ngay woor ñu ne ay ca lu mu ci wax rek ñu ne ay ca lu tax wa huwa al wa huwa taala waaw ma ñëw ci beneen tomb muy baabu tawakkul man zanna nafsahu mutawakkilan wa huwa waahim waaw boroom xam-xam ñu ne ku defe ne wàkkirlu nga yaa ngi ci defe-defe wàkkirlu duñ ko def ci defe-defe déedéet dañ koy def ci yëg-yëg ak ki jëf am xel ki xalaat ñoo koy yëg bu cër ya ñëwee ñu ànd waaw rekk tabarkal lu dul rek du baax moo tax kon defe ne defe ne wàkkirlu nga defe-defe la waaw defe ne wàkkiirlu nga defe defe la wakiirlu ay yëg-yëg la wàkkiirlu pas-pas la waaw mu ngoog mbokk yi maa ngi suut daariyaat ay cinquante fa firu ilallah maa ngi ci eh, wàccuwaayu juróom benn fukk ak juróom istinaafu tawba ah tawxiid ngeen baal ma kamaalu tawxiidi shartul imaama waaw tawxiid bu bu ma sëkk ku ko def bokk ca njiit ya hmm? waaw waaw waaw tax ñoom ibrahima ak ña mel ni ñoom ulaika alladina aataynahum alkitab walxikma wannubuwa fa in yakfur biha haulaay faqad wakkalnaa biha qawman laysu biha bi kaafirin ulaika alladina hada llah fa bi hudaahu muqtadi waaw waaw moom la waaj a def ca rijaalun xawla rasul ndeysaan ca pagem bu njëkk ba xaalid ibnu xaalid xaritu xaaj malik maodo bu xaaj abdul asis <laughs> montar yu baax yépp ñoo bokk heure yi baaxut moo nekk ci horloge yi ñuy defar borom bi ibrahima ak ñamel ni moom al ambiya ak rusul nga xam ne ñoom seen liggéey moo doon dàq shirk saxal tawxid sunu borom ne gaa yooyu ñooy ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon alkitaab ku ci nañu teg ci sa loxo ab livre mu nekk livre bi orienté nit ñi ak seen ruux di leen yaraka defar wal xikma ñu joxaale leen pédagogie joxe téere yooyu ak jàngale ko wa nubuwa jox leen ak nubuwa mooy ndomba tànku yónent nga mu ne ko su su su jamonoy tey weddee ñooña dana am ñu ñëw duñ leen weddi su jamonoy tey weddee ñooña aw gaay ngi ñëw ñu leen dul wedd moo tax fu la nit saagaa na sa xel dem ci nit tàgg na la waaye bu ñu la taggee wala bu la saagaa mu metti ah fàtte nga tagg wax xanaa fa in yakfur biha haulaay faqad wakkalna biha qawman laysu mu jeex <laughs> waaway bu ñu la bu ñu la saagaa mu ne am na koo xam ne kii xelam nekkul ci saaga la waaw mu ne leen kon ñi nga xam ne duñ weddi li ngeen yor mooy dalal seen xelu bu ñëlee bu bu ñële weddee ulaayika ñii nag ñooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla jubal fa bi hudaahu muqtadi toppal seen tànk ya hmm fa bi hudaahu muqtadi léeg-léeg nga gis président di génn dëkk bi yàlla na ko yàlla yokk wér mu am oto yu ànd ak moom ñu tudde leen convoi defe naa nun la convoi waaw <laughs> convoi bi bu fekkee dañoo départ ñëpp dañuy taal seeni signal defe naa détresse lañ ko wax xawma signal danger ñu taag taalandoo ko waaye gis nga li feeg yaa ngi ci biir convoi boobu bu fekkee cil ma xambaakul lañ jëm danga nga àgg waaw da àgg incha bu fekkee dañ fay jóge jëm tay ba cekkee nit da àgg maanaam ki dog yoon wi ko ànd ak moom yaa ngi ca yoon wa fa bi hudahu muqtadi waaw moo tax boo noppee gis gaaya dangay jàpp ci ku gis gaaya boo gisul ku gis gaaya nga jàpp ci ku xam gaaya loolu la borom lax dañuy wax borom téere su ndaw soosu ci digg arab lool waaw wala yaxlu mukallafin an an yafala filan xata yaalama xukma laay fiihi waaye daf caa teg wa yasal al ulama wa yaqtadi bil muttabiin yàlla na ko yàlla fayal xeet wi hmm? waaw moo tax ibrahima alayhi salaam ci wàllu kamaalu tawxid chartul imaama kero ba ko yàlla ne dama laa bëgg a def imaaman linnaasi inni jaa'iluka imaaman li inni jaa'iluka linnaasi imaama xaala wa min durriyati borom bi def na ko dama laa bëgg a def imaam mu ne ko defaale ko sama doom dama bëgg sama doom donn ma ci imaama gi sunu borom ne ko waxaat ko inni jaa'iluka linnaasi imaama xaala wa min duriyati sama doom ji defal ma ko imaam mu toog ci imaama gi xaala laa yanaalu ahdi zalimin sunu borom ne ko déet na matal charte bi kamaalu tawxiid na ko matal ni ko matale ba ma def la ko bu ko ko matalee ma def ko ko gis nga bu njëkk bi parti daan am ci wàllu wàllu euh, ñu ko tuddeeti wàllu politique parti di am école de parti ci lañ daan liggéey ba ki ne inni jaa'iluk linnaasi imaama sart ya nekk ca kañ fal ba mu nekk imaam ñu bëgg koo def ci camarade de parti yépp ba nga xam ne koo ci gis rek kenn la ca mbooloo ma ki jiite mbooloo mi ni mel la ñépp di bokk mel suma léegi loolu dafa yàqu waaw kamaalu tawxid chartul imaama chartul euh, salaam moo tax ci bëgg tawxiid su masaan xëy mu ne asbax na ala fatratil ala fitratil islaam wa kalimatil ixlaas waaw wa diini nabina muhammadin wa millati abina ibrahim mbokk loolooy tawxiid istinaafu ak tawxiid te mooy wéetal yàlla moom dong kepp kot waaw moo tax al imaam doon wax ne a tawxiidu fiqhun qalbiyun waaw laa balaaxatu lisaan nee na tawxiid ci xol lay nekk waaye du nekk ci làmmiñ moo tax léeg-léeg nga gis ko am muqarrar ci tawxiid ñu jàngal ko tawxiid ba mu xam ca deux plus de égale quatre waaye xol ba nanguwul deux plus deux égale quatre mbokk yi teg leen seen baaram foofu ñaan yàlla mayoon dund ba ëllëg te weesu ko ñaan ku ma def jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jégglu soxna yi jégglu sëriñ si beneen bunte gu bàyyi moo di jaxate tabaarakallahu yàlla mi sàmm yàlla nu boole sàmm dugg nañ ci gi ci bismillaahi rahmaani rahim yàlla nan ko àggal ci alhamdulillahi rabbil alamin waaw yàlla bu nu juubu yàlla buñ tay dog waaw yàlla buñ yàq suñu koor yàlla buñ ko xajamal yàlla buñ xajamal koor jàmbur yonent bi nee na boo wooree lu la waay def nee ko damaa woor bu la saaga bu la xase bu la yuuxoo lu la waay def rek nee ko indi saa saa'im damaa woor jërëgéen jëf ki leen nekkaloon ci wàllu xarala yi moo di seen mbokk euh, Alassane Thioune ngeen àndoon tafi beeg seen mbokk Alioune Sall yàlla yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir te def ci sunuy poos dara wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu